حول عسير يسير بي الجسد الذي غادني لا كريم علي معروم يسير سكري بأقلامي وقلبي وجسدي لمن كان لي بالجود وهو شكور نسوري وتايدي ويسير الرداء من الواسع الوهاب فهو النسير أميري لدى سيدي ومكسي وسيلتي قديما له وهو زرعنا ومن كل سوء وهو جل مجير مسيري كوني عبد خادم النبي وامر البرايا للاله يسير سوري وايامي غدا لي شواهد بكوني عبد الله وهو الشهيد ستوري في الدارين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 فليقول لي مرامي وإني شاكر وفقير أموري لو فوته والقلب تيب غريبا لدى الأعداء الرسول وخاتمه وهو الوسيلة سرمدا وفي القلب مني من إلى رسول وخادمته في البر لسير انتهى إلى الله والمختار وهو المنير النبي لا دامت لأن bisimilah barkeb Serigne Saliou jërëjëfateeti Serigne Saliou Serigne Saliou xaadimul rasul jërëjëf ginnaaw ba nu sante yàlla saa mi nga xam ne seexul xaddim moo nu waxoon ne bu bis bi ak seetee ngeen sant le yàlla saa borom sant nañ yàlla saa borom di julli ci rasulullahi kii di wax ci yow nag kii nga xam ne mooy wax ci kaddu gi moom la ñuy wax ne ñang baalo moom Serigne Saliou Mbacké ànd ak ñii nga xam ne ñëpp rek danoo ànd ngir jàppale président Abdoulaye Sylla bis bi lii nga xam ne nag noo nga koy amal dunde guléet ndax yaakaar naa ay jëfam ju rafet ay ab liggéeyam ci Touba kenn ku ne xam nga ko ndax yaakaar naa fii lu jógee léegi rek ci sunu benn baay bu baax danoo àgg ci moom di ko présenté ki nga xam ne mooy président Abdoulaye Sylla mu ne kooku rek xàmmeewu ma kanamam waaye xam naa ay jëfam loolu nag seere la joo xamante si nii foo dugg ci dëkk bi ci Touba yaakaar naa xam nañu ko ci moom lii nga xam ne nag doon na ko doon nañ ko amal tey du dara ci moom tey defu ko ngir ngistal waaye day mel ne olof day wax ne tubaab maa fekke la bëgg loolu moo waral nuy wane lii waaye lii du dara ci moom jëf la joo xam ne da koy def waaye moom ci jëmmam sax lii du def neexu ko waaye faw nu wane ko ngir àdduna xam ne kii bëgg laaj réew mi nit ko baax la taalibe bépp Serigne Touba la ku dëkk bi ñor la ku bëggit lu baax la ñun nag ay ndaw lan yoo xam ne kenn mënunoo jënd te it kenn mënunoo manipuler waaye bu nu àndee ak moom danoo ànd ak moom ngir jëmmi Cheikhul Khadim ji ak dëkk bi dëkk bi ci lañ juddoo ci lañ yaroo fi màggee te it mënunoo am lu gën a rëy dëkk bi ku bëgg dëkk bi ñu bëgg la ku jàpp dëkk bi ñu jàpp la te it depuis 2016 ba tey noo ngi gis ay camions yu suufam la mu man ci sëkk dëkk bi moo ngi ci la mu man di ko defal Serigne Touba ba pare ci privé di bañ ko ko wax moo ngi ci koo xam ne bu jëfee jëfam nga siiwal ko mën na la caa ba kookee bu ne laa man bëgg na maa liggéey ci dëkk Serigne Touba bi lu kenn dul xam loole lu ñu war a gëm la li mu def nag te mu feeñ li def te mu nëbb moo ko ëpp loole nag moo waral nu ànd ak moom ay ndaw lañ yoo xam ne ñun kenn mënunoo wan lu dul ak talibe ñun ci sëriñ bi rek la dox te it sëriñ bi rek moo moo ci ñu mën a góondee ci leen nu góondee nag la sëriñ bee ca waxoon ku ñu ko timbax mu rimbax ñu rimbax la ko dañu ko timbax moo tax ñu rimbax na ko démb ci màggal gi la tàmbali lii mooy di ay bernde ay xéewal lépp loo xalaat ci xeetuk naan te mu dagan ci biirub murit dañu koy def ci biir murit yi loolee moo moo waral ñu ànd ak ñi ñu àndal ñëpp ngir ngir ngir ñëw ñun nag sunu borom danoo dogal ne duñu duñu duñu duñu duñu duñu sakki jëf ndax Serigne Saliou dafa waxoon ne cant dëgg-dëgg balaa baax day nuroog wanewu lii nag du wanewu waaye cant la goo xam ne dañu koy cant Serigne Touba ci bisam bi waaw dañ koo gàttandu di ko gunge waaw amaana nag da ngeen a jàpp ne jeex na jeexut li ñu des jëfi suuf la yoo xam ne dañu koy jëf ci dëkk bi te duñu ko wane waaw loolu rek la woon nag. sant rek Serigne Abdoulaye Sylla mi nga xamante ne si tey moo tax ñu ñëw fii sëñ Abdoulaye Sylla dégg nañ lu baax lu muy def si biir dëkk bi wax dëgg yàlla ñu ngi koy dégg bu baax li muy def ci barabu sëñ Saaliw bu sëñ Fàllu bi xam nañu ko li mu def ci barabu sëñ Sidi Muxtaar bi xam nañ ko ak mbalem dëkk bi su ñëwee lépp li mu fiy def xam nañu ko wax dëgg yàlla gis nañ yoo jëfam ci yoonu murit waa ñu ngi takku nag parce que yéen koo jàppale ci barki sëriñ Saaliw waaw lépp lu muy def rek gis nañ ko ci dëkk bi wax dëgg yàlla ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm waa lii nag wax dëgg yàlla ni ko comme ñang euh, baala waxee rek ñun kenn mënuñoo jënd waaye dañoo gis lu baax li muy def si dëkk bi moo tax ñu jàpp ko fas yéene koo jàppale te yàlla rek tax. Touba lan dëkk te bëgguñu lu dul sëñ Touba ak waa këram maanaam maa ci raw man maa bëgg sëñ Fallou ba ko bëgg dama lay jàppale fekkoon na ma fenn nag waaye ba ma déggee ne moo defar barabu sëñ Fallou bi dana ma koy jàppale ak ñu ma àndal te itam Porokhane ci boppam dañ faa am kër ñu man bañ naa ba Baye Fallou maam Diarra lañ ma tudde kon Abdoulaye la dañ lay jàppale ndax yow comme borom doomi borom dëkk bi nga ñun dañoo bëgg suñu dëkk bii di Touba bëgg na suñu dëkk bii di Touba dañ bëgg a defar mu jëm ca kaw ca kanam kon bu dikkee dañ koy jàppale ca kaw waaw ñun nag Touba rek lañ bëgg ndax Touba rek lañ am. Abdoulaye Sylla maa ngi lay nuyu di la ziar la jox sa wàccuwaay bu baax a baax waaw di li nga def rek moo tax ma di la sant nag ñun amuñu lu may Serigne Touba bëgguñu ku may Serigne Touba. ku bëgg Serigne Touba nag kon war nañ koo mën a jàppale bu baax a baax a baax wax dëgg yàlla amuñu lu may sëñ baara ak suñu xale yii rek lañ am. Euh, jotaay bi ne la ko bokk na si mooy euh, association bi nga xam ni muy seen seen seen yuy liggéeyal Cheikh Mouhamadou Lamine Bara euh, jëm jo ju baax na ku wax sëñ Abdoulaye nga xam ne man mii di wax tur yi ñëpp xam nañ ko muy sëñ Cheikh na alxuraan yàlla xam xam ni ñu bokk ñu bokk si njabootu sëñ Sidi Muxtaar nga xam ne nu ñu mel rek moom la. te itam yàlla dogal na itam suñu borom def nañ mbooloo mu yaatu yaatu mi ngi suñu ginnaaw di ñuy déglu waaye suñ Abdoulaye Sylla moom itam yàlla dogal na képp koo xam ne bokk na si euh, kër sëñ Sidi Moutar xam na ko nga xam ne barab bi lépp daanaka ginnaaw yàlla si loxoom la sottee ñu xam itam diggante ma ko sëñ bu baax a baax nga xam ne sëñ bi na ko foo xam ne maanaam ñu ñu doon ñu ñu nekk si ak kipaaram ñëpp xam nañu ko bu baax a baax a baax nee nag digg naa ne yaa ngi euh, dagal réew mi ñun nag yàlla dogal ay donga daara ay ndawi daara lañu su fekkee daal bëgg loolu yomb si yow fekk fekk suñu fii si gone yi li ñu nekk ni nga taxaw leen si jàppal leen si bu ko ñun la ñu war mu si wàllu ñaan wàllu baatin des na si taxaw bu soobee yàlla ñoo ngi si am bu baax a baax ngir sa sa taalib ak sa taxawaay kon nag ñoo ngi les dagaan nga taxawu gone yi taxawu gi mindi gi loo yaa ngi daan taxaw sa waaye nga gën ko yokk rek incha allah taala ñu dañ koo bëgg a jàppale ndax doomu dëkk bi la bëgg a defar dëkk bi di taalibe sëñ Touba bu wér moo tax ñu bëgg koo jàppale mu gagné 2024 incha allah. vraiment wasuwaay ñëpp ziar ñëpp rafetlu taxawaay bi mobilisation bi ñu def tey lépp rafet na mbooloo mi bari nañ wax dëgg yàlla lépp daal li ko waral mooy Abdoulaye Sylla rek ba ko jàppale 2 millions 4 incha allah ndax mu jël réew mi vraiment ku fonk seen su Tuubaa la jàppale seen su Tuubaa liggéey rek moo ko ñor te boole ko fi wax ñun nag kenn mënuñoo jënd seen Tuubaa rek nga ñu mën a jënd du leneen waaw kuy nax daal seen Tuubaa nga ñu naxee te gis nañ dëkk bi ni koy camion yi andi seetar na yi lépp ñu manque ndox mi sëkk ko loolu lépp xaajul xaalis bare bare def ci te duñ ne bulet teel a ko mos a def réew mi lépp luñ jàppoon nañ koo bàyyi ndax moom waaw di dalee fii guy mind gës sa ñaan Mbàkke Baari euh, Looyeen Sura lépp di leen mobiliser ngir jàppale Abdoulaye Sylla 2024 incha allah mu jot réew waaw ndax ndax Abdoulaye Sylla wax dëgg yàlla liggéey kala jàmbaar la réew mi ko soxla waaye soxlawul réew mi waaw ku employé deux mille et quelques personnes kooku doo gën kenn ku ko jox réew mu liggéey barabu sëñ Fall bi deux milliards la ci barabu sëñ Sidi Muxtaar bi defar kooku suñ ko mu liggéey kon nag na ko ñëpp jàppale waaw daayira maam jaare yi nekk fii mbootaay yi ñëpp dinañ génn jàppale Abdoulaye Sylla incha allah 2024 mu jël réew mi soobee yàlla